mi ngi noonu mi ngi noonu boo laalee ah oui c'est l'hymne national de la jeunesse sénégalaise ici à Mbacké malgré li xew li yëpp yëpp yëpp yëpp président Ousmane Sonko mi ngi nii pare na ci chantier bi pare na ci chantier bi xalif bi recevoir na ko échangé nañ ay kaddu moo taxoon sànq bëgguñu woon àggale live bi parce que fii de di bërëb goo xamante ne bëgguñu ko woon boole ci loo xamante ne day ànd ak politique bi waaye président moo ko waxoon ne dinaa ñëw lu mu guddi guddi balaa may génn Mbàkke dinaa ñëw ma xool seen liggéey ma barkeelu ci xam naa di ngeen découvrir beneen image boo xamante ne beneen vidéo buy wane ne président Ousmane sonkoo di woote pour sénégalais yi jàpp ci liggéey bi ndax liggéey boroom Touba la warul taxaw suuf warul laal suuf donc dafa war a gën a gaaw C'est avec un cœur rempli de joie. Nous sommes toujours au poste malgré attaques malgré yëpp ñoo ngi accompagner le président Ousmane Sonko le Baye bu askanu Sénégal ñoo ngi nii di génn ci chantier bi xoolal image yi xoolal ma image yi xoolal ma ce festival de lumière regardez ce festival de lumière les jeunes sont sortis encore boo ko laalee ko laalee walaay du ma mën na def ndax lii ci xew ci Mbacké ak Touba président Ousmane Sonko moom dong moom kott moom kese moom moo ko mën. Regardez, admirez festival de lumière. Admirez ce festival de lumière. on est à Mbacké on est à Mbacké on billaay wallaay taalaay lu nit mënul ci Ousmane Sonko moom mi nga xamante ne mooy borom agenda bi nga xamante ne mooy dicter le rythme de la politique sénégalaise. Rohé Sardi Rohé Sardi mi ngi noonu mi noonu.

Baye Fallou askan wi exceptionnel écoutez cette jeunesse écoutez ces cœurs qui vibrent exceptionnel exceptionnel exceptionnel le président Ousmane Sonko qui lève les bras en signe de reconnaissance vous l'avez dit waxoon naa leen ko le rendez-vous de Mbacké aura bien lieu le rendez-vous de Mbacké est il est là Mbacké a dit oui Mbacké a président Ousmane Sonko drapeau Sénégal baa ngi flotté drapeau Sénégal baa ngi flotté ñoo ngi Mbacké Bawol président Ousmane Sonko dugaan na ci oto bi xam naa waa kër ñàkk jom léegi ñu ñëwaat chargé waat ndax lies la ñuy bañ sénégalais yuy fii fii ay sénégalais yuy dund lu neex la ñuy bañ te lii dafa neex président nee na na oto yi avancé président nee na na oto leen déglu leen woy bi waaw Macky Sall bëgguñu ko Macky Sall c'est un rendez-vous d'un homme Ousmane Sonko Baye Fallou askan wi ak ñi nga xamante ne moo di jeunesse Mbacké rendez-vous baa ngi noonu rendez-vous baa ngi noonu rendez-vous baa ngi noonu jeunes yaa ngi noonu génn gungewaat ko les gens sont des patriotes ces jeunes sont des amoureux de la République du Sénégal ces jeunes Sénégal moom moo leen ñor ces Sénégal la ñu bëgg on m'a montré image bi est devenue virale gis ngeen ko ci internet bi des jeunes de Mbacké qui escortent les forces de l'ordre pour ñu rejoindre seen auto ça c'est le patriotisme au sommet c'est le patriotisme au sommet billaay wallaay président Ousmane Sonko moo yor ay ndaw président Ousmane Sonko moo yor askan wi président Ousmane Sonko moo yor jigéen ñi le Sénégal là Mbacké Bawol a dit Mbacké Bawol a dit oui, exceptionnel. Regardez cette marée humaine, regardez cette marée humaine, exceptionnel, exceptionnel. tey amul ku mën na def ndax lii président Ousmane Sonko dong moo ko mën fii tey amul ku mën na def président Ousmane Sonko moom dong moom kot moom rek moo ko mën a def nous sommes à Mbacké nous sommes à Mbacké Mbacké Bawol Mbacké Bawol il est 20 heures 11 minutes on est à Mbacké gis ngeen ak lëndemaay bi gis ngeen ak détermination bi on va avancer certainement on sera encore gazé mais dara ndax lii Sénégal moo ko bëgg euh, on est en train d'exercer notre liberté d'expression notre liberté de mouvement de circuler librement dans un pays démocratique et qui s'appelle le Sénégal les batailles de nos anciens les batailles de nos devanciers on on a l'obligation ñun sénégalais jeunes yi ñu maintenir ko Sénégal ca kanam président Ousmane Sonko en général en Baye Fall askan bi est là sur la grand sur le grand boulevard de Mbacké qui s'achemine qui avance dans la nuit noire qui avance entouré d'un festival de lumière c'est exceptionnel ce qui se passe à Mbacké Mbacké c'est exceptionnel tey du ma ne ku mën na def amul émotion bu may naan loo bu may wax loo ku mën na def parce que la seule personne bu ko mën a def moom kott moom rek moom dong c'est le président Ousmane Sonko et nous sommes là en train de le vivre en direct malgré les agressions mi ngi noonu mi ngi noonu gars yi commencé waat nañ defati nañ seen mënin defati nañ seen mënin defati nañ seen mënin y a pas ya souci y dañoo bàyyi kilifa suñu ginnaaw yaagul bëgguñu ñëw ba fii di ko indil galgal kilifa boobu moo di la xalif des Baye la xalif de Baye Fall bu président Ousmane Sonko ñëw xool liggéey bi wax ci lu baax en même temps dina woo woo na déjà tous les patriotes d'ici et d'ailleurs ñu jàpp ci liggéey bi ndax liggéey borom Touba warul laal suuf warul laal suuf ci kaw rek ci kanam rek mi ngi noonu Mbacké mi ngi noonu il faut allier le spirituel et le ak li nga xamante ni moom mooy la politique ci loolu la ñu nekk Ousmane Sonko de xeexal askanam c'est une recommandation divine xeexal sa askan ñoo ngi nii on est là on avance comme j'ai dit dans la nuit noire on avance le président Ousmane Sonko en symbiose en harmonie avec cette jeunesse sénégalaise ñun duñu ay ragal on avance On avance, on avance. Exceptionnelle mobilisation. Le rendez-vous de Mbacké est là. Admirez cette marée humaine. Beufelez, beufelez, Au fond, les jeunes sont là, les jeunes sont là, les jeunes sont là. Que les geôliers de la République, qu'ils lancent leurs lacrymogènes, qu'ils lancent leurs balles, qu'ils lancent qu'il tire sur, en fusil euh, sur cette jeunesse-là. Mais elle est tout aussi déterminée que les parents qui sont à la maison, chapelet à la main, qui prient. Pour que le Sénégal soit ce beau pays, pour que le Sénégal soit ce pays développé, pour que le Sénégal soit réconcilié avec li nga xamante ne moom mooy sa dignité son souverainisme cette dignité retrouvée li nga xamante ne président Ousmane Sonko moo di jox dëkk bi Touba di jox wàccuwaay dëkk bi di Mbacké nous sommes là nous sommes des privilégiés de l'histoire on marche triomphalement aux côtés d'un homme exceptionnel Baye Fall ou askan bi le président Ousmane Sonko qui avance et qui progresse Boy. Boy. Boy.

Ousmane Sonko est encore sorti le président Ousmane Sonko est encore sorti mi noonu saafonteeg xale yi parce que guddi na parce que guddi parce que guddi na waaye mi ngi noonu.

Mbaye Tyson Mbaye Tyson Mbaye Tyson Mbaye voilà Edouard Edouard Fouti amul Momo amul limousine Boy Diallo Diallo am mi ngi noonu mi ngi noonu on progresse ñoo ngi dem président dañoo war a jalaat yoon bi mi ngi noonu Mbacké ngi noonu merci Mbacké merci Mbacké le rendez-vous a été tenu waaw le rendez-vous a été tenu waxuma la meeting rek waaye meeting la bu ànd ak leneen ak leneen bu ànd leneen ak leneen mi ngi noonu ñoo ngi jëlaat voie bi nga xamante ne moo yobu yóbbu Dakar Exceptionnelle mobilisation de tout à Mbacké. Les patriotes ont été au rendez-vous. Les patriotes ont été au rendez-vous. Le leader a été au rendez-vous. Le président Ousmane Sonko, accompagné en ce jour des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Andu Nawlé dëggantaan muy neex ñooy ànd. Quand on veut dresser un mur contre nous, ils sont toujours ensemble, Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Tidiane Youm, Déthié Fall, Ahmed Aïdara, le président Malick Gakou, ils étaient tous là aujourd'hui, ànd ak seen ak seen xarit ak seen frère, le leader des patriotes du Sénégal, le président Ousmane Sonko. Maa ngi leen di béggee, ñoo ngi béggee ñëpp. Les patriotes de Mbacké ont été au rendez-vous. Les patriotes du Sénégal ont été au rendez-vous. Jërëjëf, jërëjëf. <laughs> Mi ngi noonu. Ñu boole utile ak agréable, c'est ça l'esprit patriotique. Waaw, lu ko jar rek ñu def ko. Mi ngi noonu comme je disais, vous le voyez devant moi. Convoi bi mi ngi organisé wu. président mi ngi ca kanam a kanam on a perdu un peu de distance par rapport ak président parce que oto yi dafa bëri mais sachez que le rendez-vous de Mbacké a eu lieu le président l'a honoré la jeunesse patriotique de Mbacké et du Bawol l'a honoré, aussi mi ngi noonu xaaral defar toogaay bi ndax xam naa mi ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko